salaamaaleykum salaamaaleykum mbokki jullit yi ak mbokki taalibe yi defe naa ni jëmm jii di waxaat ak yéen xàmmee ngeen ko ci info réew mi muy galaay taalibe bàmba di def ak yéen émission en direct yi ama am am solo ndax gis ngeen ni démb ci waxtu bi defal na leen ngontug Cheikh Ibra tey defe naa buñ leen indilee jëmm ji ci suñu wet war nañoo mën a waxtaan ci moom lu bari waaye duñu def lu dul sant ak gërëm ñi tax ñu xàmmee ñu ndax bu ñu déparé suñuy kàddu dañoo war a njëkkee ci Serigne Mountakha Mbacké moom mu fi toog tey doon xalifa sëriñ Basiru walbatiku doon xalifa sëriñ Touba mat ko sëkk di ñaan Mbàkke mu yàgg fi lool te wér ba yenn bi mu oyof lool ba ñun ak mbokki taalibe ñu mën koo liggéeyal sëriñ Touba bu ñu fa jógee dañuy dem ba Mbàkke siyaar sëñ Cheikh Jëmm Fall ndax ku dugg ci armée wax ak capitaine ba te sëñ Cheikh Jëmmu Fall boo nee général kullu Baye Fall dajal nga yoonu murit waaye nag naaru maam aw fay buñ ne galaay taalibe Bamba ku ne xam na ni taalibe Cheikh Abdou Karim Mbacke la tey nag duñ def lu dul jëfal leen ñoom ñëpp ak équipe bu Infos mi ñu ñëw tey ci gan gi nga xamante ni moom lañu dalal muy sëñ Mouhamed ñaa ñëpp xàmmee ko ci yoon bi su waxee ñëpp naw kàddoom su wooyee ñëpp nag gonga kon tey sëñ Mouhamed lan leen indil fi ci info mi fa seenee waxtaan ak mom lu bare bare bare ñu bàyyi ko mu nuyo mbokk mbokki àdduna sëñ Mouhamed ñu ngi leen nuyu. alaykum adina assalamu alaykum senegal ma ngi wax sama làmmiñ jërëjëfati Serigne saliw comme niko ñepp misé ci sama lamagne di ñaanal kilifa diine yëpp ak kilifa aada rawatina. suñu kilifa yoonu murit wi di sëñ Muntaxa Bachir di ko ñaanal mu yàgg fi téer ak sama wasila sëriñ Cheikh moom sëriñ Saliou ak njabootu sëriñ Saliou gépp ak bépp xalifa te nekk ci biir yoonu murit mu ngi siyaare ñëpp di siyaar sama soppe waaw sëñ mohamed mel na ni mbokki taalibe yi taaxir la na lu yàgg ci info mi ndax dige woon nañ danañ fi ñëw waxtaan ak yow waaye Mouhamed dañuy question bi ñuy njëkk ci yow mooy li ñëpp tàmm di la ko laaj mooy Mouhamed fan la jànge ci àddunaam Mouhamed Niang fi mu jànge man de ku ma xam-xam ni ab dongab tarbiye la bu sëriñ Saliou xel koom laa jànge xel koom laa tarbiye xel koom lañ ma tasfiye xel koom lañ ma tarxiye yooyu baat nag ku ne xam ni yoonu murit wii bi ko Serigne Touba wootee ñetti baat yooyu ñoo ko tënk. dëgg la muy tarbiya tasfiya tarxiya loolu la sëriñ Serigne Saliou Mbacke woote fële ci xelkom di ci yar xale yi. te mooy wax ji mu waxoon rek ne nañ ko jox ndaw ñi. ndeysaan mu def ci ñoom la Serigne Touba daan def ci mag ñi loolu la dëggal. dëgg la maam tawféexu nag bokk ca. xale yooyu nekk xel mm-hmm. waaw sëñ Mouhamed defe naa ñëpp ràññee nañ ni xel kom nga jànge waaye ci biir njàng mi lañuy dem ba tey Mouhamed fan la jàngee ay woy ba bu woyee ñëpp kontaan ay woy nag mën naa ni jànguma ko jànguloo ko jànguma ay woy mm-hmm. waaye bokk naa ci askan wi nga xam ni mm-hmm. bu ñu ko tuddee rek am xel day dem ci woy muy askanu ngéwél ci askan woowu laa bokk di lambin bokk ci askanu géwél bu mag Sénégal ñi fi nekk di woy ñëpp samay bokk lañ kenn ku ci ne mën naa lax li ma bokk ak moom kon ku bokk ci askan woowu rek li ñuy njortu ci yow mooy war ngaa mën a way waaye man dama yor souvent nii man ngéwél woyloowu ma ngéwél ak ngéwél woyloowu ma ah. man sëriñ Saliou ma woyloo dinañ ci xam dara <laughs> <laughs> eh. ndax ku dégg li may wax xam ni mën a way taxul nga xam ko dëgg la neex ba taxul nga xam ko jagle la wu yàlla def ci yow mooy la mag ña daan wax demoon ba yëg ci seen xol ba di ko jàllale seeni way mooy li ñuy wax waxuñu ko waaye message la bu Serigne Touba jaarale ci ñoom ñu di ko wax dëgg la loolu noonu lañu leeree ñoom suñu jëmm yi moo tax man nekkul lu ma jàgg dëgg la dëgg waaw Mouhamed bu ñu jógee ci loolu nga ne wooy jànguloo ko waaye lan mooy inspiré Mouhamed ñan lan lay inspiré woo. man nag sama inspiration sëriñ Saliou la. sa inspiration. Serigne Saliou la man su ma xoolee Serigne Saliou rek sama inspiration day yokk ndax sëriñ Saliou mooy jëmm ji nga xam ni daa ñëw def lépp mhm. ni ko Serigne Touba waxee woon ci woyam wa. wahab li yàlla xin masayir wal amal asalihan lazi yukamilu amal yow yàlla maa ngi lay ñaan sa jëmm jooju di saaliw nga xam ne boo ma ko mayee mooy mottali sama yéene ci mat googu nga xam ni mooy mottali yéene sëriñ tubaa ji sëriñ saaliw noonu la daje ci lépp moo waral saa yu ma ko xoolee rek moom day day doy ci man inspiration moom sëriñ saaliw moom sëriñ ndax damay wax toujours ni sëriñ Saliou xam-xam moo koy way ku ne neex ngaa way waaye sëriñ Saliou neexut a way déggil lay laaj nag wax ci léegi nag foofu mu Mouhamed dama lay dagg comme nee nga Serigne Saliou neexut a woy te yow loo woy Serigne Saliou dañuy bàyyi nga may mbokk yi lay seetaan ci loolu nga woyal ñu sëriñ saaliw ndax nee nañu boo ko waxee xol yi mën nañoo tooy <laughs> ku am sëriñ saaliw am lu ne saaliw ndax lu baax saaliw kenn du sëriñ saaliw neex na nu nun way leen sëriñ saaliw mooy mbegum jaam ñi kiitinu ruu yi moo yore mbir yee neex na nu nun jotaaye leen far seeni jëw ngir moonu soril caw ate yàgg laaj ya neex na nun bàmmee la may laaj ndax xam nanu waa ji wuti jël ko ki yor leerug néew yi neex na nun nitug sëriñ saaliw buy sukuraat moom du ko yàgg ngir moom ka muy gis waa ji neex nanu nun yokkal samay fan ndax tey ma wax yaayi kan yow borom la gën yooyu mbàkke yaay kii neex na nu nun la xam yaay kii fal ku sut yaajal jaawale woo kuy cal doxu kuy naaw neex na nu bu ñu la xamul woon waay waay duñu texe ndax yaay waay waay mu jugu jamono ji waay waay ku ci texe yaa tax waay waay duñu la utal maas waay waay Amadou Njaay ki kenn la ndeke ne fi kenn du yow ween nga say melo gisuma ku lay nduru fii ci dun be ku mel ni dootu fi am sang be yaaram bi yaara beng fi yow ku yàlla wan ci jëmam gis nga kaala gi bawuma ci gaynde rabu àll bi ndeka mu daqoon ba mu raw faw sëy nii njayal yaa xam sang bee ndemoo ne waaja waxul te kenn fekkewul te ki ko xamay ki waral bi jotaay ci sëriñ saaliw mi kenn ke nde du nu ñaar cay sang bee xolal Yanqooba yonen booba ay mbiram te Yuusufa di doomam doon yonen ba jomal na doomi baayam yooya Kanaan te Biniyaa bi mbokkama natoom ya tax mu yilif buuru Misra ya pexe la yàlla di jaar ngir taram ba ndeka ko joxoon na waral leeri Usmaan noore ni yaa am bay karaa muril nu mbooti sa jëf wan ibra faal bëggunu ko umpale ngir weddi baay faal ndeke ko xamay ku dudee làmp faal sëñ faalu yaa xam joojowaay waaw loolu loolu mel na ni dugg na ci xolu murid yi macha waaye dafa am ñoo xam bi ma leen waxee ni tey Mouhamed lay dalal ñu ne ca diwaanu Brésil dañoo am mbégte say soppe lañu ku ci mel ni Dambay Ablaye Mbaye ak Amdi Moustapha Mbaye Séeri Ndey Njilaan nee na sa soppe la bàyyi Mati Mbaye ñoom ña nga ca diwaanu Brésil bi ma leen ko waxee dépp boobu ba léegi ñu ngi ci tubbi defe naa ni fi nga laal ci Serigne saalo laal na seen xol waaye Mouhamed ba tey duñ jóg ci question yi ndax dañoo wax ni nan doxantu pour waxtaan ak Muhammad nit ñi xam muhammad tay ñu bëggoon xam sa digënté grand théâtre buñ woy kat tay yow yaay kiko ñëkk songu dan la deewoon wala ban gëm-gëm nga amoon nga ne man jankat warna naa grand théâtre ñu fekk ma fa sa digënté grand théâtre ba nga ñëmé ko lan la am pas pass bu wër rek Serigne Touba dañ koy gëm waaye dañ koy doyloo waaye dañ koy wóolu moom Serigne Touba waaw boo yamee ci ngëm da ngay yokk ci doyu yokk sa pas-pas ci moom la wóolute loolu nag kóolute googu ñu am moo tax bi ñuy jug di dem Grand Théâtre Mohamed Niang ay woyam la gënoon xam jëmmam dëgg la jamono jooju grand théâtre képp ku fu ma sa dem ku ne dama koy wax tout le temps dangaa natt sa bopp ba noppi dangaa natt sa bopp ba noppi doog faa dem grand théâtre bu njëkk nag laay wax bu njëkk waaw ndax grand théâtre léegi nit ñaa ngi fay dem mhm. demuñu fa c'est parce que pour mu fees léegi nit ñi mën nañ faa dem woote ko nii rek ban façon dem ak bi nga demone lu len wutale non dama lay djublo da am lu ma la jubloo leeral ah. suñu grand théâtre bu ñëk défi bi ci nit ñi amoon moy mhm. buñ fa daan dem c'est parce que dañuy wote mu vees ba ku fa daan dem nit ñi dañ lay tital di la di la di la ñaan la yoy ngir bëgg mhm. bo woté mbolam mi wuy ci la mais légui dem nañ ba lolu nekkatul ci nit ñi grand théâtre da nga gis léegi ku fa dem mhm. nit ñi ñëw ak mu ñak ñëw ñi ñëw non intéressé wu ko na def spectacle am mu neex après mu wacc ci anam dem bi grand théâtre bu ñëk ñi fa mës a dem te ñu xam nañ ci ay xam nañ ko fii ci Sénégal ñu xëy tëb fa dañoo natt seen bopp. Mhm. ñii dañoo dem terrain ak EPS. Mhm. natt seen public ba ñu leer ni xajatuñu fii ñu dem Grand mhm. ñii natt seen public ci ay ci ay soirée ci ay fune ba ñu xam ne xajatuñu fii ñu dem natt seen bopp Grand Théâtre mais Mohamed Niang bi muy jug di dem Grand Théâtre nattul boppam ci fenn Mohamed Niang bu muy jug di dem Grand Théâtre nattul boppam ci fenn kon xanaa dañ koo dee woon boobu mooy wóolute bi wala kóolute gi ma am ci Serigne Touba te xam ni bu fa nit di dem di woy leneen di ko feesal. Mhm. kuy wax ci yàlla war na ko mën a feesal. mel na ni wér na loolu. loolu moo waral ma jug mhm. ne damay dem grand théâtre bi ma jógee damay dem grand théâtre ñëpp dañoo dar seen gémmiñ ba ci ñi ma bokkaloon di liggéey sama staff. Mhm. kenn gëm ci woon. ma boole sama ngëm-ngëm ak sama wóolu sëriñ Touba. dem Serigne Touba defoon ma ci ndam loolu moo ma ci defal. waaw foofu bi mu fa tollee nga ne say staff wóoluwuloon nga am sa gëm-gëm boot staff bi di dem ñooñu bi ñu waxee ndax amul la déstabiliser. déedéet dangay dangay xam rek. te loolu yàgg naa dal artiste ak staffam. des fois. waaw dafa mel ni sëñ Mouhamed am na ku ne ci ligne bi ñu bàyyi ko xel allo. waaw ah, salaamaaleykum. maaleykum salaam. allo. waaw allo kilifa gi yow rek la ñuy déglu. waaw ñoo nangu si allo. waa allo. allo. waa ñu ngi lay dégg yow rek la ñuy déglu. ngi rafetlu baax émission bi. jërëjëf. di ñaanal Mouhamed Niang baax. di bëgg ci moom. waaw di rafetlu bu baax émission bi wax waaw di rafetlu ini émission bi di leen xam ne initiative bu rafet ngeen jël mhm. wax yàlla leen baax di leen ñaanal mhm. Mouhamed Niang nag day sama jànkat ndax moom dëggu gi fayda gi jërëjëf loolu moo waaw jërëjëf mel na ni kooku dem na nee na mu ngi lay woowee ci diwaanu parcelle mm-hmm. xam naa nag du ñàkk nii ñi nga xamante ni jotu nan bàyyi xel ni ñëpp ay bëgg a songandoo moo tax déedéet tuuti réseau bi di faral di daw mm-hmm. waaye sañ Mouhamed ba tey ñu ne ci grand théâtre boobu ma gis ni Mouhamed Niang tey bu jógee soppe yëpp bàyyi li ñuy def topp Mouhamed loolu boo ko yëgee wala nga gis ko ci sa ginnaaw ban yëg-yëg la lay def waaw loolu dañ ciy sant rek mm-hmm. ndax nit booy def dara lu lu baax di ko defee ci anam bu bu jaadu di nga ci am ay soppe mel na rawatina nag ngay def lu jëm ci sëriñ Saliou ndax Serigne Saliou àdduna sépp ko bëgg moo waral faw nit ñi sopp ma ndax li may wax la te dama waxat lu dul Serigne Saliou te sëriñ Saliou nit ñi moom rek a nekk ci seen xol muy murit yi muy tijaan yi mhm. muy xaadir yi waaw sëñ Mouhamed dafa mel ni am na ku ne ci téléphone bi ñu wuyu ko ndax ñoom ñoo ñu fi bàyyi tey alo salaamaaleykum. salaam. sëñ bi waa ñu ngi sant sëriñ Touba bu baax a baax tur fooy wootee. salaamaaleykum. maaleykum salaam. sëñ bi maa ngi leen di siyaar baax. yàlla na yàlla nangu siyaar ñu ne tur beeg foo nii woowee. Cheikh Jonn Touba Italie Milano ndeysaan ah ndeysaan ndeysaan waaw naka wa Milano bayi yene ngi ci jam ki ndongali Cheikh Jonn la aha waaw yow rek lañuy deglu? maa ngi wote Tuba Touba Italie Touba Milano aha waaw naka wa Touba Milano ba ña am jam? ñi ngi am jam baax baax dañuy sétane suñu mbokk taalibu bobu mhm. waaw te ñun dañuy bëgg sëriñ Saliou bu baax a baax a baax yàlla xam na ko. ndeysaan jërëjëf. ñu gis ko di rafetlu bu baax a baax li muy liggéey di ko ñaanal suñu borom kattanal ko bu baax a baax. amiin. Cheikh Mouhamed ñu ngi lay ziar baax a baax. ñoo ngi lay lu bari bari bisimilah waaw mel na ni kooku dem na waaye sëñ Mouhamed dafa mel ni waa commentaire yi ñu ngi ne Mouhamed mu ngi sëgg ci téléphone am te ci xanaa dafa fàtte ni en direct la nekk wala soo fay ñooy bëgg a wax ak yow. dama bëggoon jàllale dama fàtte. numéro bi dama ko bëggoon jàllale sama groupe fans club bi ñu am ko mën a teewlu émission bi waaw loolu moo taxoon waaw waaw numéro bi numéro bi soppey mohammed Niang yi numéro bi da ngay def 77 rek 864 54 99 su ko defee da ngeen mën a am Mouhamed Niang am na ku ne ci ligne bi ñu wuyu kooku bismillah salaamaaleykum asalaamaaleykum allo allo. salaamaaleykum. maaleykum salaam. kilifa gi ñu ngi lay siyaar. waaw dangay wàññi li ñuy dégloo fexe ñoo déglu ci téléphone bi tur fooy wootee. alo bisimilah waaw. waaw seigne mohammed ñoo ngi ci téléphone bi waaye mel na ni ñu ñuy wax ni fans yi ñu ngi nekk ci ligne bi waaye ba tey dañuy konne ak waxtaan bi dañuy ñëw tey ñu bëgg xam kan mooy mohammed ñang ah Mouhamed ñang de moom euh, wax ci moom dina xaw a jafe Mouhamed Niang mi toog waaw wax xam nga wax ci sa bopp yomb mel na ni waaw waaye li ñëpp mën a xam rek mooy daanaka sama jaar-jaar umpatul Sénégal ndax mën naa ni wax naa ko fépp Mohamed Niang gone la goo xam ni ndakaaru gii laa juddoo yaroo ñaari tali màggee Grand Dakar xemmelu ko Touba ndeysaan loolu nag su ma ko waxee mooy sama papa ñaari tali la am kër jóge fa bàyyi ay rakam ak ay sëram dem déménager wu Grand Dakar ñun Grand Dakar lañu lañu lañu lañu lañu màggee secteur boobu grande car lañ ci gën a miin parce que ñun bi ñu nekk xale xàmmewuñ lu bari ñaari tali Grand Dakar lañu màggee mais am 1994 ci la sama papa jugee Grand Dakar tuxu Touba. yaa ngi dégg diggante boobu nag li ci xew bari na xëy na bu waxtaan bi gën a xóot mhm. dinañ ci leeral lu bari bari waaye ci gàttal Mohamed Niang Dakar la juddoo mhm. màggee ñaari tali waaw sëñ Mouhamed am na ku ne ci ligne bi ñu jël ko salaamaaleykum allo alo soppe Serigne Sall ci waaw waaw alo maa ngi maa ngi maa ngi rafetlu seen jotaay bi maa ngi rafetlu seen jotaay bi. merci. maa ngi woote fii ba itali ndeysaan fan ci Italie. di rafetlu seen. waaw maa ngi Italie di rafetlu seen jotaay bu baax a baax di kontaan sama jàngkat bi nga invité noonu. ndeysaan jërëjëf. amee amee amee ñun. ndeysaan. di ko ñaanal di ko ñaanal jàmm lu baree bëri. waaw di ko ñaanal lu di kontaan bu baax di sàkku seen ñaan. ñu nit kontaan nañ lool. waaw dafa mel ni dañuy bëgg dégg di déglu waaye ñuy dégloo ci téléphone bi rek ñu mën a continuer di waxtaan waaw Muhammad comme ni nga ko waxee rek waaye ñu muhammad ñu gis ni da ngaa bari ay soppe rawatina jongoma yi. ñii nee nañ jongoma yu am alal wala ñu rafet ñu taaru soo ko bëggee gis bu Mouhamed ñang wootee demal xool ay soppeem sa digganteeg ñooñu lan la Mouhamed <laughs> ah. Eh sama waa ji daal galaay daal yaa sa xorom. ah ëpp naa def de <laughs> déet damaa gis say woote. wala cant yi ñu ne Mouhamed ak koy jàng. da ngay taxaw tuuti gis borom oto yi di taxaw. bu ñu taxawee dañuy gis jongoma yu rafet. sañse ah, lu rafet. xam nga dañ ne ah, sa mbaaxu moroom. sa mbaax dara loolu dëgg la daan la fekk ci yenn barab yi waaye buñ ñëwee dañuy gis jongama yi dañuy sañ sa ba rafet dëgg la macha allah nga gis taaru jigéenu senegal waaye Mouhamed Niang ak jongama yooyu seen diggante lan la waa xam nga Serigne Saliou waaw ñu ne am na ku ñuy signal ne mu ngi ci ligne bi ñu konne ci question boobu salaamaaleykum allo waaw kooku dafa mel ni dem na allo jaa ngi dégg maanaam way ci ci ku dégg ni may way xeet way ko ci ay xiin mu dëppook jamono ba noppi am xam-xam loolu Serigne Saliou moo ko fi indi yaa ngi dégg moo waral àdduna dox gi muy dox ku xool bu njëkk fi way nekkoon ak fi way nekk tey di nga xam ne àdduna dox na yaa ngi dégg mhm. parce que way communication la mhm. di defar jamono da ngay ndaw ndawi jamono ji mhm. ci étape bi ñu toll nga defé non sa fiir ngir mën leena japp nga ne kuy ñew di defar jamono da ngay xol fu jamono toll ci étape ba mu ne nga xol nan ngay def ba jenti ba defar sa wa jamono ba rawale leen ni ngay defé nak moy créer ay mohamed ñaa mhm. créer ay leneen nak leneen lo xamni mhm. bu ko nit déggé xelam dina dem ci seigne salih bu dégloo tëgg mi ak riim bu neex bi. dañuy mhm. xaar ma déglu li waa ji wax. Mhm. soo dégloo tuuti. waaw ñu ne am na ku ne ci ligne bi ñu jël ko salaamaaleykum. allo. waaw kilifa gi siyaar na la fo eh, tur foo nii woowee. allo. waaw allo yow rek lañuy déglu ma ni tur foo ñuy woowee. dëgg la maa ngi ziar man la Dame Mbaye Brésil. ah waaw yi kooku de sama turandoo papa mooy sa soppe na Brésil. Ah, ndeysaan ah waa Brésil dafa fa bëri soppe. ndeysaan waaw. waaw ñu ngi si jàmm ñu ngi sant sëñ Tuubaa wér. sëñ Mouhamed yàlla na yokk yàlla na yokk rafetlu waxtaan wi. Mhm. na solo lool moom dañ laa bëgg ngir jëmmi Sëriñ Saliou. ndax amuñu lu dul Sëriñ Tuubaa li ngay tagg Sëriñ Saliou neex na lool macha allah. di ñaan yal na Serigne Saliou wéral ba amiin at bi eh, la ndax li ngay wax neex na lool jërëjëf waaw ñun moom sa soppe lan moom noonu ko laay waxee moo tax bi ma ko waxee tey moom ma ne ko sëñ Mouhamed moom il foo ñu déggante ak moom ndax wax dëgg yàlla maam daal macha allah daal li ngay tàggee Serigne Saliou kontaan nañ bu baax a baax baax xamal ni daal ñun ñu lay bëggee fii ñu nekk ci Brésil appartement Serre Fall. ndeysaan ziar naa leen bu baax. waaw Galaye. waaw Baye Dame dégg nañu wér waaw émission am na solo lool. sama gars yi fii ñëpp ñu ngi koy teewlu wax dëgg yàlla moo nu tee nelaw ndax émission bi moom neex na trop. merci merci. waaw ndeysaan Mouhamed ñooñu noo nekk diwaanu Brésil xam nga soppe dafay mën boroomam ndax boo xoolee ñii. bi ñu yëgee ni Mouhamed dafay ñëw ci inférieur mi dañoo bàyyi li ñuy def ñoom ñëpp waaw ndax ña nga ca diwaanu São Paulo ñoom ñu bëgg Serigne Touba ñu waaw bari nañ fay moroom nag waaw waaye ba tey ñu ne ca fa nga nekkoon sa diggante ak sa soppe ci loolu laay ñëw mhm. profité nuyu leen mhm. ñoom waa Brésil mhm. képp ku nekk ci diaspora bi rek maa ngi lay nuyu di la fekk fa nga ne di la jox sama loxo rawatina Brésil dama faa bëri ay soppe daanaka duma ma toog bis bu ne te nit nekkul Brésil woo ma sargal ma ci way yi may way dëgg la kon c'est l'occasion ma nuyu leen siyaar mm-hmm. leen lii yëpp day duggaat ci sa question bi waaw ci soppe yi mm-hmm. waaye so waaye question bi dañ cee taamu ñu ne yi macha allah. waa moom laa lay wax jongoma yi dañoo maaseeg jamono mm-hmm. yaa ngi dégg mooy jamono yeesal gi ma lay wax ni mom la Serigne saliw yeesal. Mhm. jamono ndax mom moy borom jamono. Serigne saliw te borom jamono. Mhm. so ñewé ci jamono. Mhm. yow yaay xol nooy yeesalee sa jamono. yaa ngi waral te ñoom ko ci seen rek ndaw la. ko ci seen rek xalé la. waaw ñu wuy ñi ci ligne bi ba tay rek ndax dafa melni tay mom, moom mohammed Mouhamed kenn du may nga wax lu yegg waaye ñoom mom assalamu alaykum bismillah waaw kilifa gi tur foo ni woowee. jaajëf fii day euh, Malick Fall Baye Fall la. ndeysaan sëñ Malick Fall Baye Fall nekk diwaanu fan. waaw maa ngi maa ngi woote fii Danemark. ndeysaan Danemark yéen a ngi fay am infirmier bu baax a baax waay. cey. waaw waaw ñu ngi bëggee moom xam naa waaj nag bu yàgg quoi xam naa nag di ci sant sëñ boobu. ndeysaan sëñ Mouhamed. waaw ndax. Euh, ne ni bitim réew leen nekk amuñu lu dul sëñ bi hmm. ci ay manières yu bari yu wuute hmm. waaw te cant moom Cheikh Béthio da ko sant waaw ñëpp cant ko hmm. kon nag képp kuy bëgg a sëñ Tuubaa moom nit dégg ak koo mënti doon jërëjëf waaw da leen wax amin rek jërëjëf sëñ Tuubaa Cheikh Ibra da leen da leen gën a yeesal ci Ibra ci la bokk nag bu leen ko fàtte mu ne ñu yeesal cheikh ibra ci la bokk cheikh koko yoon bi cheikh ibra bokk ci moy lepp jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf ndaysan waaw dégg nga mbokk taalibe boobu neen ñu ciy boole cheikh ibra te cheikh ibra buñ ne sëñ touba dëkk la cheikh ibra yoon ba fa jëm waaw ñu jëlaat ki ci ligne bi salaamaaleykum waaw asalaamaaleykum waaw kilifa gi tur beeg foo ni woowee waaw ñu ngi ziar bu wér yàlla na nangu ziar waaw alaaji Cheikh Diagne la di woote depuis Italie. di woote. depuis Italie. ndeysaan waaw naka waa Italie ba yéen a nga am jàmm. waaw ñu ngi ziar bu baax. yàlla na yàlla nangu ziar. waaw kon kontaan kontaan trop ci émission ndeysaan ñoo leen gën a kontaan. Wow, sëñ bi moom li muy def macha allah macha allah. jërëjëf bu baax. macha allah. waaw waa kontan. waaw san. ndeysaan sëñ Mouhamed dafa mel ni soppe yëpp ñu ngi xataraay ne ci téléphone bi waaye nag dafa mel ni bu sëñ Mouhamed ñog jógee rek soppe yëpp yëngu dëgg la moo tax duñ jóg ci wax Mouhamed ak soppe ak njàng gi ngay jàng am na nag waa ji fi wax léegi lu am solo waaye ña nga ca kanam Mouhamed ñu gis nga jëm ci événement boo jëmee ci événement ban melokaan ngay doxe ak nan nga koy waajee ndax dafa mel ni min nga grand théâtre waaw xanaa di ko waaj rek ci anam boo xam ni képp ku fa ñëw doo rëccu ñëw gi nga fa ñëw képp ku dagg sa ticket dem grand théâtre boo fa ñëwee doo rëccu lan nga doon ñëw grand théâtre ndax ku fa ñëw mhm. di nga fa fekk mhm. spectacle mhm. boo xam ne ci yàlla lay wax di fa fekk ay woy yoo xam ne ci yàlla lay wax te ren bari na ay surprise yoo xam ne prévare nañ ko pour événement bi uh-huh. bëgg nañ ci ay waxtaan yoo xam ne day jëm ci Serigne Saliou uh-huh. bëgg nañ ci ay documentaire yoo xam ne day jëm ci Serigne Saliou uh-huh. ak yeneen ak yeneen yoo xam ne duñ ko wax waaye ku ñëw Grand Théâtre daal man ku miin sama seen xam ni lépp lu ma fay jàllale rek luy wax la spectacle mën naa ne bi ma ko commencé def man est-ce que njëkkuma ko def Grand Théâtre sax spectacle ndax bi ma ko defee laa commencé gis nit ñi di ko def te loolu du suma ngóora mhm. ndax yàlla dafa ma booleek ay liggéeykat mhm. am kuy xool samay spectacle suivant di ci benn tubaab mhm. sëñ Saal Wakaana ñu bari xam ko ci sëñ Saal sëñ Saal tubaab moom yàlla may ko ubbi ko nag loolu di métier muy metteur en scène mu mën ko lool xarañ ci ku xool samay video ak samay lépp yi ciy xew yépp moom moo koy tracé moom moo koy def ah. keroog sama premier spectacle di ma def grand théâtre la ca génn lepp te lepp jëm ci yalla ndax lu fa seen rek ci yalla lay wax yoyu Mouhamed Niang ku ko xam ci lolu ko xam yoyu nak dañuy wat yenen nak yenen yu yes ndax ku ne xam na ni Serigne salim la yaatu te def ci adina dafa yaatu waaw amna ku ne ci ligne bi ñu déglu ko alaykum allo allo allo da ñuy dégloo da ñuy déglu ci téléphone bi ñu woowee ndax déggante bi mën a yomb allo waaw ndeysaan sëñ Mouhamed comme li nga wax dégg nañ ko bi nga fa defee spectacle gis nañ fa yeneen yi bokkul ak li nit ñi xalaatul woon waaye Mouhamed dama lay dugaloo waat ci woy nga woyalaat ñun ndax commentaire ñu ñuy wax ne dañoo namaat sa baat ci émission bi ñu bëggaat nga am ci loo jukki rek ñu waxtaanee ko nga ñu woy ajana la waaye bakkan ak àdduna rek a a wër safara nde yàlla laa mu yor njaayam jënd ko jëf rekk lay may mbiram billaahi mooy njëgam nan jaamu ji yàlla xam ko baa nga xam ndawam ku ràññe xut bu saman du weddi li ma wax yow waarekat bi waare ndaxam yow waaru nga waral sa bopp ba xam ba noppe waare nag ab dof na muy faaje ay dof loola minte lu nit di kan nas lu bay faj loo ko def maare nan waaru tey waare ndax léeg nu la ngir bukki lu wiiri wiiri dàdde naari sëriñ bi nag pake bi jàlle moo ko yor nañ daldi tab gaaw jug dem fa muy téere pake di fekk doxub ay at mu dox ko fii ci lu gaaw paquet yi fekk doxub ay at mu doxoo fii ci lu gaaw bul teel a ñam teel a ñam baaxul négal ba mu ñor mene nuk nee yam palpal matul ne pelab baykat dafay muñ boo toolam ñor mu góoba ki gar xëyrab bu teg dagg teg ñey njëkk door a ñam mbooleem ko njëkk a ñam lay day mujj rek di jur di ñàkku looy wut dugub di njëloo ko gëlëm bul ñibb muktaane oo jàkk yow sow mbébét ab rëbb ñibbee kii ko bàkkewal dub ab rëbb ñibbi di ñaan dawal yi dum ndaamam teeyal ba jam yàlla mi lépp yàlla nu jam àlla kërayam foo baaxee rek mu doy foo sànge ñépp mu doy foo dul falo bu fa jëm xam leen ni sëriñ bi moom moo ne fu ne lu waay mën a sàkko ñaan ki muy nangoo ndeysaan macha allah macha allah loolu baat bi wér yàlla baat bi wér ndax neex na lool waaw am na ku ne ci ligne bi dafa mel ni dafa taaxirlu woon salaamaaleykum allo allo waaw allo waaw yëkkatil yëkkatil baat bi tuuti waay ñu dégg ko yëkkatil baat bi tuuti waay ñu yëkkati ñu dégg ko waaw ndeysaan sëñ Mouhamed gars yi ba tey dañoo nekk ci buumu jokkoo gi macha li nga fi wax neex na lool waaye nag ba tey sëñ Mouhamed dañuy jëm ci wàcc. salaamaaleykum. waa ñu ngi sant sëriñ Touba bu baax a baax. oui naka ngi jaamu bu baax Sénégal. waa ñu ngi sant bu baax a baax tur beeg ni nii woowee. waa ñun ngi tudd Janko Bayo depuis Italie ndeysaan Janko ba nekk itali oui depuis naka Italie ba yéen a ngi am jàmm bu baax a baax. waaw alhamdulilah ñu ngi sant bu baax alhamdulilah. na yokk yàlla na yokk ci doole Cheikh Ibra. oui nax affaire yu seen animation bi neex na trop de. ñoo ngi sant bu baax a baax ñoo ngi sant boo leen kontaanee rek ñun kontaan nañu. waaye yéen a ngi leen koy neexal bu baax mais yàlla jàmm sax foofu rek. allahumma amin te muy te mu law ci ñëpp. waaw ba lépp lañ lépp loo leen bëgg rek suñ borom def ci xewul quoi. allahumma amin gën ndeysaan réseau bi mooy xat rek waaye ba tey Mouhamed ñu dem ci événement gi ngay wajal ñu ne yaa ngi événement jëmati grand théâtre nan la ko di wajale ndax soppeem mi tey ñu ngi lay suivre ci info bu baax baax. waaw niñ koy waajee ku ne gis na album bi nga xam ne moom lañ def. muy album Ndongo Daara. di dix titres. te loolu yëpp biñ koy def ngir euh, wàccaayu grand théâtre ndax 2016 lañ fa gëj 2017 mhm. demuñu fa 2018 mhm. bii mhm. fin 2018 bii la ñuy la ñuy delluwaat moo waral ñu prévoir ko ci album boobu nga xam ne def nañ ko yàlla barkeel album bi mu wër àddina waaye may waxaat soppe yi ni leen dinaa génnewaat yeneen trois morceaux yoo xam ne moom la ñuy gunge événement bi yu bees yu kenn mësta dégg waaw yoo xam ne dina génn bientôt yàggul dara mm-hmm. loole ñu def ko rek ngir gën a bégal soppee Serigne Saliou yi ndeysaan ndax sëriñ Saliou mm-hmm. nit ñi dañ koo bëgg loolu am na bëgg mm-hmm. ab xam-xam ci moom ndax sëriñ Saliou galaay dafa mel ni bi mu defee secret bi ci la ko nit ñi di soog a xam moom Serigne Saliou. bi mu Serigne Saliou mooy borom jàmm ak jamono. waaw bi mu borom njoowaan gàccaroonu xay ga. bi mu làqoo def mhm. secret bi. Mhm. dafa mel ni ci la ci la nit ñi doog a xam kan mooy Serigne Saliou. ndeysaan loolu nag moo tax nit ñi mhm. di yàkkamti ku leen di wax ci Serigne Saliou. man mi nga xam ne yàlla dimbali na ma. ma mën a wax moom Serigne Saliou jaare ci man ba mu mën a wax lu nit mën a dégg moo waral damay duggaat ci sa question nit ñi sopp ma. moo tax événement bii nga xam ne moom lañ dëgmal maa ngi ciy woo Sénégal gépp ndax 24 décembre ku ko xam-xam ni fête la boo xam ni euh, nit ñi niñ ko xamee woon mooy am po dëgg la bokkoon ci mandat waaw am po lañ ko xamee woon te ku xam décembre xam ni weeru yent yàlla install la te yent yàlla insa yent bi yàlla la mhm. kon jàpp naa ne ku comprendre loolu loo ci def leneen lu dul am po yàlla dimbali nañu nag comme seytaane bawut dara dëgg la dana fexe lu rafet lu ne mu jéem koo ñaawal moo tax ñun yàlla dimbali ñu ñu ne événement bi duñ ko jàpp benn bis bu dul 24 décembre bis bi nga xam ni ci la seytaane di jóg ngir bëgg a yàqal nit ñi ndeysaan ndax booy xool seytaane bis yi nga xam ni ci lañ mën a amee yàlla rek ci bis yooyu rek lay yàqalaate mel na moo tax ñu profité mm-hmm. ñun ñi mm-hmm. jéem a bay suñu waar kem ci li ñu yàlla jox fexe am date boobu mm-hmm. ndax metti na yombul c'est pas évident grand théâtre nga dem fa ci woykat buy woy yàlla waaw 24 décembre waaw am na am na ku ne ci ligne bi suñu paree ñu jëm ci vingt 24 décembre boobu salaamaaleykum allo sëñ bi asalaamaaleykum maaleykum salaam tur beeg foo nuy woowee sëñ bi ñu ngi lay siyaar lu bari bari man maa ngi wootee Italie. cey waa Italie. Italie Italie. Italie waaw waaw. ah si jàmm sëriñ bi. waaw yal yàlla dolli jàmm. ñu ñu si jàmm. waaw da ngeen ñuy dégloo téléphone bi ñuy wootee ndeysaan bañ di ko déglu en direct noonu day yéexal bu mu jokkoo gi waa sëñ Mouhamed ba tey ñu jëm ci 24 decembre ndax bu ñu nee 24 décembre Mouhamed Niang jëm grand théâtre ci wax nga ko léegi ci bis boobu li liñ ci màndarga woon lan moo la dee ak lan moo tax nga ñeme ba woote bisu vingt 24 décembre ci 2018 bi waaw xam nga àddina mhm. ni ko yàlla bindee lu baax ak lu bon yàllaa fi ne ak seytaane ku jëmul ci yàlla jëm ci seytaane waaye ñun dañuy dagaan ci woote yi nga xam ne Sëriñ Tuubaa woote na ko ku ne dégg ku ne gis li mu daj ci yàlla ngir rekk sauver jàmm loolu nag buñ dee ay jumtukaayam mënuñoo jaar ci wenn yoon wurul yoon wi Serigne Touba jaar fexe ba ku newul ci aw yoon waaw fexe ba nga nekk ci aw yoon ñu ne am na ku ne ci ligne bi salaamaaleykum allo allo salaamaaleykum soppe bi waaw ba tey ñu kon ne yaa ngi dégg mhm. manam ni ma ko waxee léegi ni mhm. li jublam rek mooy mhm. kor a gàllankoor nit ñi seen diggante ak yàlla yooyu nak wax naa la ko léegi ci mhm. bis yi rek lañ ko mën motax mané na jangal wax nit ñi kem luma sama katam ci len kat bis yi bu accepté nañ ci tuubal yalla di ko ci sant di ci wax ndawam yi nga xam ne ñoo ko nekkal ci kaw suuf di leen ci sant ndax ku santul borom jamono doo sant yàlla déedéet nit ñi dañuy wax sax ku santul nit doo sant yàlla mhm. waaye loolu cantu métaphore la cantu métaphore mooy nit ki la may cent franc mhm. nga sant ko mhm. ci cent franc bi mu la may waaye cant googu bokkut ak cant gi nga xam ni da koy sant ki nga xam ni moo nekkal yàlla ci kaw suuf lépp lu yàlla yi jaarale ci jaam yi ci kooku la koy jaarale kooku looy def ci yàlla te jaaraloo ko ci moom yàlla du nangu kooku cant dëgg kooku mooy xalifatullaahi fil ardi kooku mooy sëriñ Saaliw borom jamono <laughs> kooku nag moom lañ bëgg a jàngal àdduna wan ñépp ci ni lépp lu mën a xew rek lu luy nuru nuru lu ñaaw moo xam lu ñaaw la moo xam lu rafet la dañ ko cee war a jaare sant yàlla te jaare ko ci moom. ndeysaan moom Serigne Saliou. waaw mhm. ndax àdduna jeex na ba noppi. dëgg jaamu yàlla rekk moo fi des. Mhm. kon may waxat ndaw ñi. Mhm. rëkkwaay bis yi nga xam ni. ñi ciy nax nit ñi. di ci profité di leen ci fooloo. di leen ci def defloo ay bàkkaar. ñun kéem luñ ci mën mooy. li ñu yàlla dénk mhm. bu ñu wootee ci yàlla am ñoo xam ni loolu lañ bëgg mhm. ñu fekk si ñu moo tax ñu tàmmu dat boobu mhm. yombul woon mais yàlla jàppandal nañu ko ba ñu am ko c'est pas évident waykatul diine am dat yu mel noonu biir grand théâtre ndeysaan loolu dëgg la waaye diine mel na lu am a am doole la te ci lañuy sax ñu wuyu ci téléphone bi salaamaaleykum. maaleykum salaam. waaw sëñ bi siyaar na la ñoo ngi delloo siyaar bu baax. tur beeg foo nuy woowee. man géejawaay. ndeysaan diwaanu géejawaay. Mouhamed. Hmm. Mouhamed maa ngi lay siyaar bu baax. ñu ngi lay siyaar bu baax. waaw man de sa na lool. jërëjëf. yàlla na bi rek. amiin. waaw. jërëjëf waay. kontaan nañ lool ndeysaan waaw kookoo ngi ba diwaanu géejawaay soppe yi fu ne ñu ngi fay woowee mm-hmm. waaye Mouhamed dégg nañ bu baax li nga wax bis boobu jàngkat wala woykatu diini am ko ci grand théâtre waaye yàlla yombalal na la ko Mouhamed dama bëgg ñu nga waxal ñu tuuti ci Serigne Saliou mm-hmm. ndax nee nga ndongay tarbiyaam nga même bu dee 30 minutes nekk nga ak sëriñ Saliou dama bëgg nga wax ñu ci sëriñ Saliou Serigne Saliou mm-hmm. lu yomb ndax lan waaw ndax sëriñ Saliou day sëriñ tubaa ba noppi xoolal doomi sëriñ Touba yi ni ñu mel menn moom la sëriñ tubaa joxor bi ne ko lin xaadatil ujjóor wal masaaliw bitte yi wal jës bi wa indi saaliw kon kooku dee sa am loo mën a xamle ci moom waaye munoo wax lépp ci moom ndax xam-xam mooy taxaw doomi sëriñ Touba yëpp di doomi Serigne Touba Serigne Touba joxër bi Serigne Saliou ne Saliou sama dooma xam nga loolu xam-xam moo koy laaj yaa ngi dégg xam-xam boobu nag munoo ko wax ci plateau munoo ko leer ci télé munoo ko wax fépp yaa ngi dégg looy xam la mm-hmm. looy xam la mm-hmm. looy dund la mm-hmm. waaye liñ mën a wax te mu jëf ko ci lislaam te mu def ko ci àddina mooy Serigne Saliou ku ne gis na diggam ak xel loolu am na ku ne gis na diggam ak yoonu murit ku ne gis na diggam ak Sénégal ndax Serigne Saliou bi mu toogee ne dama fassiyene yeesal yoonu murit di sakku ñu jox ko ndaw ñi mu def ci ñom le seigne touba daan def ci mak ña donte yow mako mo barké loko serigne saliw ak alquran serigne saliw ak khasside yi limay wax ci wayu wu wi ami diineeg ngor ci tawhid xit ñuy daw ku ñu xeeñ cu ñu xeeñ la yàlla ak yoneen bi ndaw ñi xam nañ ndaw ñi am nañ ndaw ñi yaru nañu sëriñ Saaliw ni mu def ndaw ñi ndax sëriñ Tuubaa bi muy ñëw ci lislaam bi muy ñëw dafay fekk sëriñ si ceddo si ak tubaab bi loolu bi mu ñëwee xam ni ci jamono jooju lislaam bi dem na ba jaxasoo ak xam kenn mënta xàmmee ceddo si ak lislaam bi ngir yàqu gu mu yàqu woon looloo waral yenent bi ne ko yaral sa mbooloo mi ci yitte tab dañ leen a yar ci njàng parce que boobu njàngum alxuraan demon nañ ba mënutoo ko hamme, mhm. ak li fi nekkon te mom dafa ñëwon ngir yeesal ci islam mhm. kon faw serigne touba indi menen pexé pexé mi mooy mhm. liko ko yenent bi wax ñi mënu tuñé na yar ci am njàng parce que njàng bi légui kenn xàmmeetu ko lolo waral mu xotti yoonu murit kérok la yoonu murit sosu yoonu murit fimné lu coow di bari bari bari yoonu selal la lolo mo waral serigne touba xotti yoonu murit teg mag ñi di leen tarbiya waaye xam nga sëriñ tubaa su wootee loolu muy yoonu sellal teg foofu mu tegoon mag ñi te xam na ëllëg ni yoon wi dana dox ba agsi fii mu agsi ñi ciy ñëw di ci tàbbisi te ak bëgg mu leen fay yóbbu ku teguwul ci sellal googu la taxoon mu dagg yoon bi daane ku fi am njàng indi woon na nga dem loolu day mel day duggaat ci yoon wi moom sëriñ waaw day mel ne loolu dafay duggaat ci yoon bi moo tax bu mu jokkarloo ak sunu borom ne ko lu ciy pexe sunu boroom ne ko lii de li ciy pexe mooy yen yaa ngi nii ca la ko yenum dugg ci biir géej gi moom laay wax naan sëriñ tubaa fi jéggi jàngale yarru yi dañu daa mokkali wuti fuñ naa ni moo defar jàmm yaa ngi dégg sëriñ bàmbaa fi génne noote digal buur yi ki di leen tuubi leen topp yàlla gën njariñal jaam ñi ba mu wootee la ñëpp fëx mooy li ma doon wax léegi ku ne ak say mbir ci la ñaan yàlla saaliw yéenam ja nag ngir ay jaam ñi ndax ku ñëw di nga indaale sa yëf mooy li may wax la taxoon <laughs> mu ne ku fi am njàng indi woon <laughs> ak jaxase boobu sëriñ tubaa xam na ne ñëpp dinañ daw si ñëw te ñëpp mënuñoo yegg amuñu kàttanu yegg ci pas-pas bi tax foofu góor yàlla di tege yaa ngi dégg looloo waral nag mu waxante ak sunu borom sunu borom sëf ko liggéey boobu mu dem ci géej gi bi mu demee ci géej gi ba ñëw nag ci la wax ne la ma doon wuti ci sunu borom ba ma ko amee ci boobu laa nekk Serigne Saliou. ndeysaan moom Serigne Touba moom Serigne Touba moo wax loolu. la ma sàkku ci yàlla. Uh-huh. ba ma ko yàlla defee. Uh-huh. ca boobu laa nekk Serigne Saliou. looloo waral Serigne Saliou ñëw. Uh-huh. wax waxam ju rëy ji. ne bu ma leen jiitoo ndeysaan. damay taxaw di xaar leen. <laughs> waaw waaw dafa mel ni am na ku ne ci buumu jokkoo gi sëñ Mouhamed fi nga nekkoon neex na lool allo. allo asalaamaaleykum. maaleykum salaam tur beeg foo ni woowee. waaw ñu ngi leen di siyaar de yaaram. yàlla na yàlla nangu siyaar. Mouhamed na nga def ci loo ne. ñi ngi sant bu baax kooku. man la Ousmane Dia jarbaatu Cheikh Bamba bi nga doon waxal barki démb. ah ñoo ngi lay siyaare bu baax waaw ñu ngi ñu ngi siyaar bu baax a baax damay teewlu ba mu yàgg ya, ya, tëddoon naa sax ma ne man daal lii xaaruma ma jóg woote. ndeysaan <laughs> <laughs> macha allah. waaye bég nañ lool bég nañ lool moo met. jërëjëf. te yow jàmm rek ngay am barke Serigne Touba. jërëjëf. yow ya, daal fa nga teg sa tànk foofu la. Hmm. ki nga dëgmal daal moo yor lépp moo yor mbiru jàmm ñi. dëgg la waaw comme nang ko waxe won rek ñun mom rek lañ doylo mom lañ gëm té liñ bëgg mm. dégg ci mom yañu koy wax deug la ndaysan kon kon yalla na sun borom wëral wëral baat bi wëral cër yi jere jëf man man ni teub la katan ay way ba nga mëna égal mission yi ci barké serigne salim mbacké mi nga yaakar jere jëf amin ñu bokk ñu ñëpp yaakar li nga bëgg yalla na la ko serigne salim mbacké defal amin ñu bokk waaw lo lepp lepp lo sum rek yalla ci tek loxom amiin te moom lu mu teg loxo lu mu teg loxoom a gën lu mu tegul loxoom. jërëjëf. waaw dëgg la sax moo teg loxoom ci lépp nag. ndeysaan. waaw waaw kon waaw bàyyi la rek ma bàyyi foofu. ndax xool sedd na daal. <laughs> macha allah ndeysaan ndeysaan xool xool xool yee fees te bu tuuroo yegg feneen fu nit xalaatul. waaye Mouhamed euh, fi nga nekkoon am na solo lool. Mhm. ndax euh, daanaka man sama xol sax xaw na tooy ci bi nga nee bi Serigne Touba dellusee. wax ni tey moom mooy Serigne Saliou. ndax ku xooloon Serigne Saliou xam ne yërmande kese la. Mhm. waaw am na ku ne ci buumu jokkoo gi salaamaaleykum allo allo. waaw mel na ni kooku dem na waaye Mouhamed dañuy bàyyi pour mbokki taalibe lay seetaan ñu kon continuer ci événement bi nga jëm. ñu waxtaan waxtaanee ci ndax mbokk taalibe yi soxla woon nañ ko ba bi ñu nee dañuy woo Mouhamed ña ngi fi soxla woon nañu nga leeral leen ci événement bi nga jëm. mbokki taalibe yi ñoom ñooy wax loolu ci ab commentaire yi. waaw événement bi moom. événement wu Sénégal ndax événement bi guddi sëriñ Saliou la tudd. guddik sëriñ Saliou guddik Serigne Saliou. guddik Serigne Saliou nag bu ñu ko waxee sëriñ Saliou moo moom guddi yëpp waaye ñun ñoo jël benn guddi. ngir mhm. sargalee ko ko ngir njukkalee ko ngir sant ko ci. moom Serigne Saliou waaw. li tax événement bi di événement Sénégal mhm. mooy Serigne Saliou daa defal Sénégal kër goo dugg ci Sénégal. Mhm. nit wax la fa fu mu jaar ak Serigne Saliou kër goo dugg ci Sénégal nag bawuma benn tarixa kër goo dugg ci Sénégal di nga fa fekk ku la nettali fu mu jaar ak Serigne Saliou loolu moo waral événement bi di événement Sénégal kon maa ngi ciy woo ñëpp ci woo Sénégal gépp ñu ñëw ndax événement bi kat événement la ci biir événement ndax euh, am na fu Mouhamed Niang mhm. jóge am na fu mu toll jarul di dugg ci ay détails waaye ju doy na boroom xel kon maa ngi woo Sénégal gépp ñu ñëw dooleel ma ci événement bi jàppale ma ci ngir jëmmi Serigne Saliou te loolu xam naa ni Serigne Saliou jiitu na ma ci waaye damay ñaan ñépp ñu ñëw ñu wone wan nii rek li ki kii dugg léegi wax mhm. ni Serigne Saliou moo fi nekk te moo yor li mu yor moo ko yor di ko joxe ndeysaan dëgg la ba tax na daal la mhm. le 24 décembre événement wu senegal la uh-huh. événement wu ñëpp la te Sénégal dem nañ ba léegi événement bi mhm. billaahi wallaahi wa taala yi damay damay sax rus bi ma ko deful ci 2017 bi bi ma ko deful ci 2017 bi maanaam bëri naa ci ay ay ay ay wax yoo xam ni nit ñi naqarlu nañ ko ci li ma ko deful. nit ñi naqarlu nañu li nga ñëwul ci. 2017 ci li ma ko deful 2017. kon loolu moo lay waral ni événement bi. Mhm. nit ñi mhm. ñoo ko moomal seen bopp. ndeysaan fi mu ne nii Sénégal gépp moom la ñuy xaar. kon Mouhamed Niang ak infirmier mi na la ñuy waaj nan la ñu war a def ak bis boobu ndax man xam naa ne bu ñu nee Galaye Talibé Bamba jëm ci guddik Serigne Saliou mooy daanaka wàcc na ndax tey jii laay dem dëkk Grand Théâtre rek bala 24 décembre. man Talibé la séenee dama defee ne moom <laughs> <laughs> info réew mi ndeysaan ku leen xam xam leen ci communication loolu wér na xam seen liggéey liggéey bu mucc ayib am na sama benn goro boo xam ni si la DJ événement Touba daanaka daan naa ko gis moom mu nekk mu nekkoon fa seen ndaw sama goro la info réew mi moom nekkoon Touba moom lu ci bëri ci laa doon gis mu ci def liggéey bu rafet. ndeysaan dëgg la. yaa ngi dégg. Mhm. kon lii. Mhm. mënuma bett. Mhm. rawatina nag ma fekk fi sama nijaay. fekk fi sama jëwriñ fekk fi sama xarit. yoo gis ko ci biir yëf yi. sama xel gën a dal. xam ni info réew ma fi mu war a yegg dëgg yeggu fa. ndeysaan waaw. ndax xam naa loxo bi nekk ci biir. dëgg la muy sa njaga. njaga sama sama bopp. njaga faal ndeysaan. di nit ku baax. di nit koo xam ni. ndeysaan. liggéeykat la. waaw te nit ku bëgg li muy def. te muy dëgg. dañ koy ñaanal. Mhm. fi mu bëgg liggéey bi yegg fa. Mhm. yàlla na ko fa Serigne Touba yeggale. amiin waaye ci doole Cheikh Ibrahima mhm. franchement damaa am. kersa. ci gis ko ndax cofeel bu mu am ci man. ndeysaan noonu la mel ci ñëpp ak yéene gi nga xam ni. am na ko ci man moom. bëggul nit ku ñuy néewal doole. ndeysaan waaw loolu jikkoom la. te loolu ci jikko yi sunu borom bi la bokk. dëgg la Fall la sant nag. waaw waaw ndeysaan. moo tax. dañ koy sant waxuma la Mohamed Niang sax waaye bari na ci réew mi. Mhm. ci ñoo xam ni. Mhm. taxaw na leen ci kaay yu mel noonu. Mhm. loolu nekk lu àdduna mën a seere loolu nag yàlla mi am fay yàlla na ko fay. allahumma amiin inforo mi nag. grand théâtre seen grand théâtre la. ndeysaan moo tax fa laay amul benn. <laughs> amul ben sens interdit. Mhm. buñ len ci utal. ndaysan mak yeen ñokoy and bis ni ki tay lay tàmbali bala. ndeysaan ndeysaan moo ndaysan motax ne la Babacar ndjay dula ci may dara. ndax nu inférieur mi doxé ba fal ñaga mëna am dolem Babacar ndjay boko féké ci nelaw sax bu jëgé jox la connexion nga mëna wax ak nit ñi. pendal nar nak mom du bayyi kenn. Cheikh Diop doomu Daara Xuddoos la. na la ba la 24 décembre. inshallah allah di ngi noonu. <laughs> macha allah moom daal. <laughs> yëf waaw. dinaa ànd ak yéen ci répétition yi. incha allah dinaa ànd ak yéen ci studio. ndeysaan dinaa ànd ak yéen ci lépp. ah sama nijaay kon utali ma beneen ñetti abduwaay. waaw dama ko war di sañse bala 24. incha allah rabbi waaye Mouhamed foofu dama la fay dagg tuuti ndax mel na ni ñu ñuy wax ni émission baa ngi dem waaye damaa bëgg nga woyal ñu Serigne Saliou donte ñeenti baat la. nit ñi ràññee lan na ci lool waaye dama bëgg loo ci woy ba donte yëg naa waxtaan bi waaye wàllu ko ñeneen ñi ndax Serigne Saliou kese laa bëgg nga woy ko ñu dégg cey kooku de neex na way ba mu jógee ca la woolu maam cerno ne ko cer wëril ma ndab li ca la daw ba dugg mbaakool ba mu jógee ca la woolu maam cerno ne ko cer wëril ma ndab li ca la daw ba dugg mbaakool cil ma xaa ngay riir doomi soxna jëng si la libaas yi ba mbaa sañ ma wax ci yàlla feeñ na foofa njaxate cil ma xaa ngay riir doomi soxna jëng si la libaas yi ba mbaa sañ ma wax ci yàlla feeñ na foofa njaxate ba muy ndaw la raw mokkal alxuraan naka daw ci lu yàlla bañ jàmbaar ji dimbali nga waa jamono ñaari leer yi leer te di genn leer gi waral ki fi feeñ ba leeral jamono soxna faati jaxate jaxate masuloo di fay bori julli mbaa ak i koor na fi lay yendoori faati wér du mooy waxam ja jaxate masuloo jotaay du mbootaay defoo fi lu fi ay ku lewet jàmbur nga jaxate dimbali nga waa du dundewoo lu dul ñami barke mbay wu dagan sëriñ Moodu Asta rek a gan yàlla na yàlla dolli jaxate sëriñ Bamba yaa ki ñoral yàkkal nunu añ Serigne Saliou di ñam wi rekalaat ba waa jamono Bamba ko saakoon Bamba ko ñaan tukki ba liggéey ba ngiram kile waab li yàlla yil masahil xawal amal asaalihal la si yu amal ki matal yeneen Serigne bi yërmandeem ci ji jamono way leen ko way naa yaaram bi sëriñ Saali woo fi des ngir tawfeex gi mooma ndam laa ngi ñëw leen bég leen jariñoo fi des ngir yoon wi dees naa yàlla ci giñ li raw naa lay jakartum li lee am doon leen li weer naa sëriñ Bamba yaa sant leen kii lii jëfama sëriñ Bamba yaay ki waral lii sant leen kii lii jëfama yow rek woon yaa wuti woon yow rek tey yow rek faw coowi làmb ji daa ku ne naa saa waaye dem ba mu mettee bamba moo jël gaal gi coowi làmb ji daa tax ku ne naa sa waay waaye dem ba mu mettee bamba moo jël gaal gi gaañi rang lañu woon kat morookat baa ngi mooy ki séerée ni woon yàlla rek ay buur waa ji mbër ya gantu ba bañ kenn nangul woon baakooti booba lislaamay jooy naan la yaa may wallooti booba góor mag a ngay jooy bamba moo far reeya tër ko daal ko yeew ren ko tundu jeewal yàlla jox na ndam yi drapeau yàllaa ngi alxuraan ak yeneen loolu loolu neex na loolu neex na loolu waaye fa lan lay bàyyi nga tàggoo mbokk yi mbokk yi lay seetaan ndax daanaka émission bee neex ba ñu xaabaabal ci li ñu cër la woon waaye sëriñ Touba sëriñ Serigne Saliou demee noonu fu ñu dugg rek dañ koy mat sëkk xol yi sedd na waaye dañ lay bàyyi nga tàggu ñi lay seetaan ci Infos Rewmi te di la wax ni man nga lay de mat laa bu bees rek laay wut uti Grand Théâtre moom daal. ñuy wax euh, soppe yëpp nañu xaar bientôt yàggul dara ticket yi dinañ génn. dinañ leen wax kenn ku ci ne foo ko mën a amee. waaw lépp rek lu jëm ci programme bi incha allah ci kanam topp leen ñu topp info réew mi di ci xam lépp kon foofu laay daanelee sama kàddu di santaat Serigne Saliou Mbacké ci kattan gii mu ma may ba ñu mën koo tal ba mën koo defati di ñaanalaat Serigne Cheikh moom Serigne Saliou di ko ñaanal mu yàgg fi téwéer ndax mbir yi kat bu mënee barke ba agsi fii ma ndax keroog sama album bii laataa ma ko génne dama dem ba ci moom sàkku ci ñaan sàkku ci ndimbal mu ne ma li nga ci bëgg ak fi nga bëgg mu yegg. yàlla na la fa Serigne Touba yóbbu. allahumma amiin ndeysaan moom ñaanam boobu nag Serigne Touba yóbbu album bi. ku ne xam na ni léppee daa àdduna. dëgg la bi ma ñëwee di ko sant. Mhm. ci ni ma ñaanalee. dama ko sant ne ko Mbàkke maa ngi lay sant ci nii nga xam ne seen wayjur wi def na ma ko ci kanamu àdduna. Mhm. ma wax ba yeggal mu ne ma Mohamed. Mhm. ma ne ko Mbàkke mu ne ma. la sëñ Moussa Ka waxoon Serigne Touba de danaa la ko wax. ndeysaan ma ne ko ma ne ko Mbacke loolu <laughs> mu ne ma sëñ mu ne ma sëñ Moussa Ka dana woon sëñ bi. Mhm. sabooraa waral Moussa. Mhm. yatam wa mel ni yatam wa làmmiñ wa mel ni lem. Mhm. suy wax jinne yeeg rab yi ñëpp daal di gëm. ndeysaan wala fa ko yaarama yem. lu jug ngir Rasulullah baatin ba sa xorom. ndeysaan mu ne ma waaye lu jug ngir Serigne Saliou baatin ba sa xorom. ndeysaan loolu màgg na <laughs> yaa ngi dégg. ba noppi ni ma. Mhm. fasal ci sa xol. ak sa yéene ne lii ngay def liggéeyal Serigne Touba la ndax Serigne Touba kenn ku ne la nga mën la lay liggéeyloo. dëgg la kon loolu di ay kàddu yoo xam ni. ay soññe. kàddu yoo xam ni kàddu yu ma kàddu yu xam ma ko gis. ndeysaan ndax dafa maa fekk ci sama mbébét. ndeysaan moom sañ Cheikh moom sëñ ndax billaahi muy Serigne Salim. dëgg ndax dama bëgg ñu déglu wax ji bu baax. Mhm. Serigne Touba kenn ku ne. Mhm. la nga mën la lay liggéeyloo. ndeysaan déggal loolu. loolu mooy yërmande. waaw loolu mooy yërmande. ndeysaan loolu nag dañuy sant dañ ciy sant. Mhm. yamu ca. mu yëkkati ay yére yu bari. ndeysaan jox ma. mom Serigne Cheikh salim Serigne Cheikh. ndeysaan yàlla fi yàgg yëkkati bari. ndeysaan damay wax ni sëñ Cheikh ba ma ay yére ba léegi laa rafletu. ndeysaan yére jëndatuma ko dañ ma koy jox ndeysan ndeysaan jaas bu mu mën a doon. ndeysaan ay koppar. ñàkkatuma koppar. dëgg la fu ma ci àdduna. maa ngi xaalis sama poos. ndeysaan ngir koppar yooyu mu ma jox. te xam naa ne barke mbir yi. dëgg ay dàll jox ma. ndeysaan moom Cheikh salim moom Cheikh ay dal dàlli boppam. sant ma gërëm ma. ndeysaan kon loolu rek bu ma ci yamee doy na sëkk. ak barke maa ngi sant Serigne bu baax. ndeysaan di gërëm sama staff. Mhm. di gërëm sama ménageur. Mhm. di gërëm waa xale na mel. Mhm. kenn ngi toog. Eva. ndeysaan jàppale lool ci liggéey bi. ci xale na mel Grand Dakar la bokk. ndeysaan fépp fu moomee ñang dem rek. ñii nekk ci ginnaaw di ko jàppale. maa ngi sant seen président Ndoye. président xale la mel ni nekk ci Sénégal yépp su ma limee damay juum Italie France Touba Louga mhm. Thiès xale la mel yëpp mhm. maa ngi leen di bëggee ci mhm. di leen wax kat na leen ah le 24 décembre seen bis la incha allah waaye nag di sant nag sama parrain boo xam ni da ko ñëpp xaar Grand Théâtre muy sëñ Babacar Mbacke mu kabaro moom sëñ Moussa moom sëñ Mountakha Bachir ndeysaan ku ne xam na Mhm. kóolute gi sëñ taxa am ci mom deug la ba dénk ko Kaolack ge deug la mom la mom la fassene yéene sargal ci bis bi. ndeysaan mu nangul mako ba nopi fassene tew ci bis mu kabaro borom dorang ak okas ma ya ko xam bu wer keroog bi ma ko yëgalee bis bi. Mhm. dana ma waa Kaolack rek ñoy fess gànnaaw. ndeysaan ndax jënd bi wa waaw waxam la waaw kon lolu bu ci yamon rek doyna na deug la makoy sant Mbàkke ñaanal bu yag fi ci wer amiin di gërëm ñëpp. Mhm. sama parents yi. Mhm. ñëpp dinaa leen sant gërëm leen buñ ca yeggee. incha allah sama xol sedd na vraiment mhm. kontaan naa. Mhm. jërëjëf. jërëjëf yow <laughs> allah jërëjëf. jërëjëf yokk yokk barke bi. jërëjëf jërëjëf sama jërëjëf encore dëgg la. gërëm waaw ndeysaan inférieur Mm-hmm. di gërëm auditeurs yi dugg ñëpp mm-hmm. gaa yi duggoon ci ligne bi maa ngi leen di gërëm di gërëm diaspora bi jërëjëf di leen sant di gërëm mm-hmm. Sénégal di sant di sant samay waajur di leen ñaanal yàgg fi ba ci kanam amiin amin waaw Penda Gueye xanaa dama lay ñaan ñu nit rek ñu xaabaabal ndax li ñu waxtu li ñu defaloon ci waxtu daanaka xaw nañ koo romb waaye dañuy ñaan di wax ni galaay taalibe Bamba bu toog ak sëñ Mouhamed Niang muy wax ci Serigne Saliou xolom faaw mu tooy ndax buñ ne Cheikh Abdou Karim Mbacké ku ne xam na ni ak Baye Fall la ñun buñ jokkoo ci moom doon ay Baye Fall def lu dul gërëm équipe bu Infos Rewmi njëkkee ci Babacar Ndiaye Soda jaar ci Fall Ndiaga Cheikh Diop Penda Nar Gueye Omar bu Thiès du ma def nag lu dul ñaanal sama yaay Fall Ndeye na mu yàgg fi loolu te ànd ba sama yéene ci moom ma def lu kawe sama njott ci moom sama bayi ba aladji dambay fa mu teud yàlla na gënal fi mu joggé ablay mbay sama mak momo defalon li lii yàlla na suuf oyof ci kaw mom abdoulay mbay ndax bimu fi joggé ba légui dañ koy joy di ñaanal madame mbay ak sele mbay sama bayi ci Touba baay gi lay wa São Paulo contane ngeen dafa mel ni ndeysaan Abdou Karim borom makari manax la naru mom awo fay munu ñak ñu wax ci ay cadeau mhm. ndax ku ne xam na jëfam ci yoonu murid islam lerna na ni mu tagate ndaw ñi ci yalla deug la domam mhm. sama xarit ndeysaan Serigne Mbacke Prince. ndeysaan bis bii may def it. dafa bokk ci pare yi. ndeysaan kon boo ko tuddee. foo ma jàllale sama message ci moom. ndeysaan Serigne Modou. Mbacke maa ngi lay xaar ci bis bi. ndeysaan ñoom soxna yi rek. ñu ci kër gi ñëpp. ñoom benn. ndeysaan maa ngi leen di woo ci événement bi. kontaan na. dëgg la jërëjëf sëñ Mouhamed fii rek la ñuy yem ak yéen Penda Naar gee gis nañ sa liggéey rafet na lool waaye maa ngi sant ak gërëm Mamadou Lamine sama baay ca kër ga yàlla na fi yàgg lool te wér Babacar Ndiaye mi la jox tabasi te terewul a tabaski faaw ñu wax ko